jaruma oo tuus rek you your favorite GSM operator Africell Fanta. waaw. jarul waaju ko waaju ko calm down calm down yes calm down calm down yes. asalaamaaleykum bandigol kariya mo rona ya fare na mena doro a ah, afriselle mburu tan na ni promotion o men bo dere ado bringa ni promotion o kuma sin kartambela nga fole ko wuli tallulu mi wolidira fo novembre karo ya fa novembre karo fa ta fo december karo kuduni na ñanta kelen na tili labaŋote bari kali programme o jube nyame na dron africell na ke ba fon fon fon wala fan ta na programme o kono ako nyim programme o pray a wonya o matesi ati wo laftere pour kañiŋ janfande ati laftere pour kañiŋ kafu bawo no li nga nyoma ko ede africell subscriber solo ntolu be mu family kilin neti be mu di mbaya kilin neti wala na ko ati dan na nyi wuli talulu oto ako kabo talata lungola wuli taworo woro wole be dila wolon wuli ta wɔɔrɔ ado ni ñin talata n'a la ni wo lokuŋo fana banta lokun n'a la fana a be kafula le wuli ta wɔɔrɔ wula wuli ta wɔɔrɔ wula wole fana be dii la ni wuli ta wɔɔrɔ wula fana banta fo lokun labaŋo ñiŋ karo nin desanba karo lokun labaŋo a be taa la fo wuli tan sei kuu le diyaata ñiŋ ti baŋ mala afisa timiliti kulit di manati dal ku kene ku kela o talbe ku kuta ali bore ali credito san ali ya recharge ba wali ajere mon min ba fo kanko he ya bantare sa entete fengani no la wato bantare hani wote nyindo nyimbe da men nasiram fo nyi sango bandula alkamune batu alta credito san laftala le naja sako musol jebi abaraka assalamu aleykum musidɓe men ardamen ɗo africain no mimodi wolɓe mais ɗum noon noon ko lewru o yawtuɗo men landinta ɗum ɗum ko anana woni daily crazy cash kono ka woni ɗo mawɗo men on jano on arinoga hanki onon fof on yii si tawi on daari télé ɗum hanki o arinoga kanko o inni o beyde ɗum fi weltare mo annda ko kañum o heɓani on be andanda ko onon jogui number 7 on e number 2 on ko ɗum o weltani on ha o ɓeyi ɗum ko annanda woni 2 point 2 million haade men inono ko 1 point 5 million fi o lewru yaw yawtuɗo dixiéme on noon ko two million two million min jonnirta africell ko ɗum jonnirta fi heɓugol ɗum noon ko watton ko lattin crédit mo nogoye joyi walla ko ɓuuri ɗum nomi waɗano a ñande wo ñande mi wonana on ga min indirno on tun novembre e dixiéme on fof mi wonanta on ga africell guluji capanɗe joyi ko ɗum min jonnirta guluji capanɗe joyi noon ɓeydoto ɓeɗo to ñande wo ñande min ɓeydana an ɗum kan alawani guluji capanɗe joyi on ko ɗum min noon hande noon surtout ɓeɓen crédit nogay joyi fo number ji mon ɗi noga nowde nowone wadde rôle ha kadi jento ɗon afrique radio wono 7 point 6 on jenti kadi ɗon o andane minen um, ton ton kadi live ga live ton ko noon min waɗirta ɗo ronald ah, jërëjëf Dieynaba ah, ñu ngi leen di nuyuwaat seen tur rek ah, li leen waxoon mooy lan dañ ko doon jeexal démba waaye démba gis ngeen ndey mbira bi moo daanaka moo nekk ku ku ku dee ron Africell fii Gambia kii di Mr Badara Mbay egsi fii démba yaaxa suñ programme parce que foogoon nañ ne jeex na suma maa si taxaw fii mu ragaase ñu puus ñu boor ñëw fii wane ne waa digga digga borom doole dan ko nduro ñëw fii yokkal leen mu ne leen lan promotion buñ doon joxe woo buñ nekk di joxe nii lan leen lan la woon moo nekkoon one point five million dalasis loolu lañ leen doon jox mu seet seetaat ko ne duga nañ Christmas te xam nga at bi soo koo jeexal da nga koo jeexal ak style jëna ko si yenn faana yoo xam ne waaw mooy loolu nga xam ne nit ki daal soo ko déggee rek war nga gis ko rek sa xol dafa seeda mu ne 1.5 million dafa ndaw mu yokkal leen ko def ko lan di 2 million dalasi moom la leen yokkal si weeri décembre bi so lu ñoo def fu mu nekk nii dañoo continuer 50 000 bi Tuesday suñ ñëwee dañ koo yokkatu sixty thousand dollars yi eh, week bu si semaine bu si tegu mu nekk seventy thousand dollars yi bu si tegu nag si nekk si semaine yi ah, Christmas bi utali New Year's ñu yokkatu to eighty thousand dollars loolu dara daaxu ko ñu leen lan laaj lan mooy ngeen am seen Africell line yomb na ba bugg a dee ten dollars yi soo leen ko amutee sax ngeen ñëw ñu may leen. Mm-hmm. ngeen jël ko jënd crédit lu mu twenty five dollars yi ak li jëm ci kaw dugal ko sa mobile nga waxtaane ko su soobee yàlla. lu yoo def fii tey yow sa nomba mun naa génn sa Christmas neex sa New Year's neex waaye lépp neex xale yi kontaan mag yi kontaan ñëpp kontaan so li naan ñaan rek mooy lan ngeen am seen Africell line jënd crédit dugal ko si biir soo leen ko dugalee nag ngeen call si waxtaan si teg si loo leen buggee def si crédit def leen ko rek dara dara non laaju leen dara nga gañi xaalis bu bëree bare bëree bëri bëri ñu rek mun a defal lii nag waaw lu moo tax ñu am sañ bi wax ko am na ku ma ne mu ne man su ma winee sixty thousand bi ma mënee dañuy kopp ko dox. su ma mënee eeti bi nu moo def. xaw ma walaay boobu kay xanaa rek ko kër. soo léegi lu li ñoo def mooy génne ah, Fanta defal na xaalis bi. dafa bëri ba an ah, ah, table bi sax dafa gën a fees table bi sax. <laughs> léegi li def mooy ñu seet can I win euh, pour tey. am naa maybe ñu win tey sax dañoo cha next week laa waroon win you know waaye ku nekk aw wërsagam so ñu seet uh, wërsag yi kan la moo doon tey ok first number bi di seven dema moom tuutu moo gina mm-hmm. seven lan seven four mu des lan lan 99999 waaw foog ma fàtte leen waaw waaw waaw nga yéen toogu leen bal nga you know <laughs> seven four six li nee naa wax mooy Africell dafa joxe up to eighty thousand mhm. one point five dañ koo xeeb def ko indi leen two million eh waaye dañ ko rondal dañu rondal one point five bi def ko tout rek dégagé ko fële nag indi tout seven four six soo léegi ñaata nit a des nine thousand nine hundred and ninety nine eh, li ma defoon last time di <laughs> <laughs> seven four six seven. léegi 999. <laughs> waaw 999 subscriber si nag mooy win. Mhm. lii di 50000 uh, dollars. 74673. léegi mu ngi des 99. waaw maa ngi on. <laughs> yaa ngi try tuuti tuuti. leen fàttali rek am leen seen official line. dina lii di crédit 25 ak li jëm ci kaw. Mhm. dugal ko si waxtaan call text browse. at the end of the day I win si fifty thousand toog sa kër ceeb ko pati Christmas bi I invite my barbecue You seetaan lan lala? seven four six seven three three Hoo hoo. koo xam ne number starting at seven four six seven three three started di the last prayers in me mm-hmm. because xam nga mun win lii fifty thousand dollars uh, waaye ñoo xam seen number starting na lii di ci apart from win a 50000 dollars bi di nga win lii 1000 dollars worth of Africell credit léegi nag. Hmm. ñu seet kan la moo doon 7 lan 2. 7467332. Uh, if you're listening to us on Afri Radio, the winning number for tonight is 7467332. Congratulations, you've won yourself 50,000 dollars. We'll be giving you a call to see where you are, where you're from, what you do, and then we'll invite you over here to come and receive your cash. Loads of money just for you, and congratulations once more. Fanta ut halabujigen. bu am Euh, ndeysaan ñu oo tey ngeen waxtaan ak moom ki tudda aji yaamu Fati from Bakau aji yaamu textile ñu waxtaan ak yow waaw kay taxawee nii waaw nga dëkka yow loo dee def danga dee liggéey yaa ngi liggéey waaw naa naa ko teel wóor ok so nga mm. parce que man jigéen ñi rek laa dee bëgg ñu wéet so yow nga ne da ngay liggéey yaa ngi liggéey léegi yow buñ la koolee yow xamoon nga ne promotion bi mu ngi on waaw ne mu ngi on léegi foog nga ne di nga win non foog ma ko foog loo ko woon waaye rek di jënd crédit daal waaw waaye nekk da nga di rek lii daal moom kon de yëfi wërsëg la mu ngi nii kon parce que jeex na tag fu mu ni léegi yow nag boo xamee ne da nga win de am sure nit ñi dañ la kool parce que ni ñi ñu ngi dañ dee ko ñoom moom am ñu dee jógee from nowhere kool la rek ne la yaa win oh, <laughs> loolu leen la def yow it <laughs> ñu ne la yaa win gomoon nga non ama ne gars <laughs> ok léegi am ci Africell call la nag si nga doog a gom ne yow léegi yow 50000 bi baa ma koo loxo. Mm. da nga am jëkkër. <laughs> déedéet amoo jëkkër amuloo bi nag bu fa toog ne parce que gis na ne xaalis bi dugg na rek mu ne xaaral ma yónni groupe mu <laughs> am si <laughs> ah, mooy wax. ah are you sure doo dem jëndi brésilien. non baax na kon kon sa xaalis àggug ten. 20, 30, 40, 50. <laughs> Okay? <laughs> Foog nga ree loo am pour Afrique. naa amul <laughs> amul may bi du la caméra bi du la maata. waaw jeex na rek. xanaa di leen gërëm rek. yaa mm. ngi fi yàgg rek. lu gën si yéen la ko yàlla defal. xaalis bi dina dugg si waa di nga si jënaat crédit. waaw di nga si jënaat crédit. waaw ay sure baax